dafa am kuréel boo xam ni bu dajale maanaam transporté bi lu tudd CRIS ba ma ko yëgee dégg ni dañu bëggoon déposé maanaam lu ñuy wax préavis de grève maanaam dem grève dama woo responsable yi nga xam ni ñoo nekk ci cadre bi ñaar ñëwoon bi ba ma leen di woo boobu moom tudd la woon le 17 août 2021 di ñëwoon teew monsieur Alassane Ndoye ak monsieur Gora Kouma ñu waxtaan ci wàllum maanaam seen liggéey ak surtout lu ñuy wax contrôle routier maanaam lu ñuy xool oto yi ci tali yi ñu déposé seen pré préavis de grève le 21 août 2021 man. li nga xam ni maanaam ma taxul gouvernement bi te yore dénk ñu dénk ma ministère des infrastructures ma leen woo wax jéem a waxtaan ak ñoom si point yi nga xam ne fukki poñ yu nekk seen négociation na benn communiqué boo xam ne defoon nañ ko le 15 novembre 2021 pour wax maanaam syndicaliste yi maanaam taxawaay état ubbeeku pour mën ñu mën a waxtaan. dialogue bi jéem a trouver solution yoo xam ni moo gën ci askan bi yëpp waaye après boo gisee dañ leen invité woo leen yónnee leen benn bataaxal le 9 novembre 2021 waaye dañu gis ni bañ leen woowee nanguwuñu ñëw ñëwuñu bari ci euh, démb wala démb le premier décembre deux mille vingt et un samay collaborateur bokk ministère daje nañu ak représentant cadre boobu ñuy wax euh, jéem a waxtaan tuuti ba jàppoon bi tey daañu daje bu ñu ñëwee xëy tey suba ma am ñu ma ci jot pour ñu war fee daje maanaam tisbaar vers treize tey jële ñu xaar leen ba ñetti waxtu jot maanaam quinze heures ma woo leen ñu ni ma duñu ñëw wala su ñuy ñëw na ministre yi bëri teew maanaam ministre yi nga xam ni seen poñ yi peut-être laal na leen nee nañ ministre de l'intérieur dafa war a teew ministre des force armées dafa war a teew ministre des finances ak budget dafa war a teew ministre de l'environnement ak développement durable aussi war naa teew ñu boole ci aussi le ministre des collectivités territoriales et le ministre du travail di fàttali ni tey jii man ba ma ñëwee toog xëy na ministre amaan na teewuñu woon waaye ay responsable de haut niveau yi nekk ci ministère yëpp ku ci nekk teew na maanaam même le directeur de la sécurité publique teew na colonel gendarmerie bu amee ci wàllum circulation teew na colonel douane teew na directeur eaux et forêt teew na euh, maanaam secrétaire général ministère de collectivités territoriale teew na waaye ba ma leen wooyee wax leen ni ñoom ñëpp teew nañu ñoom dañ duñu ñëw te ñëwuñu jox nag gouvernement bi maanaam gis na ni cadre bi nekkuñu ci taxawaay waxtaan te loolu ñu ngi koy maanaam déplorer wane leen pour ñu waxtaan nanguwuñ ba fii may wax ak yéen nanguwuñu ñëw pour waxtaan ci mbir bi nga xam ni moo fi nekk indi jafe-jafe ci dëkk bi démb conseil de ministres présent dafa joxe instruction ministre yi nga xam ni ñoom la concerné surtout ministre des forces armées ak ministre de l'intérieur ñu pour ñu gisee bu ñu paree conseil ba ñu paree conseil ñu dem daje ci bureau yi nga xam ni moom la ministre des forces armées yore fële ca plateau ñu waxtaan waxtaan waxtaan bu bari pour mën a trouver ay solution ci waxtaan yooyu lu ci génn mooy dañuy maanaam ci corridor yi su ma jëlee exemple corridor boo jógee dakaar dem ba ma Bamako corridor la UEMOA dafa am ay règles yu mu fixé ñu ni léegi corridor bu nekk ñetti poste de contrôle routier moo ci nekk bien que xam nañu Sénégal ah maanaam dëkk yu ko wër dafa bëri jafe-jafe terrorisme baa nga fa ah wóorul waaye dañu chaque corridor dañ fay def trois postes de contrôle te tey jii boo demee ci corridor Dakar ko boobule maanaam commencé ñu mettre en application loolu contrôle yëpp wàññeeku na d'ailleurs pour wax joo ñuy wax engagement boobu ñu jël ñu mën ko tënk ci kayit am na benn arrêté ministériel boo xam ñu ngi koy defar te dana pare lu mu yàgg yàgg dana dana dana teel a pare te ministre yi mu concerne yëpp daañu signé arrêté interministériel boobu ministère de l' intérieur dana ko signé ministère des forces armées dana ko signé ministère donc euh, euh, maanaam des euh, des finances budget ak finance dana ko signé ak ministère des collectivités territoriales dana ko signé suñ ko signé maanaam arrêté interministériel boobu ñëpp lay engagé te arrêté interministériel boobu ñu ngi koy defar te dana pare ci ay fan yu néew wala peut-être ci ay heure yu néew am na beneen poñ boo xam ni waxtaan nañ ci surtout au niveau du ministère moom la gën a concerné mooy lu ñu wax la concurrence déloyale wargaynde yeeg allo Dakar yeeg et cetera et cetera di wax ni loolu ñun ñëpp xam nañ ni transport illé illégal la ak irrégulier jël nañ ci ay matuwaay pour quand gën a fexe ba nga xam ni ñoo ñuy def transport irrégulier ak ak illégal soit ñu régulariser wala ñuy fexe avec le contrôle ba bu ñu mu def bu ñu mën a def transport boobu beneen poñ bi parce que fukki poñ la waaye dafa am ñetti poñ yoo xam ni ci am solo la ñetti poñ yooyu la wax ñetteel bi lu ñuy wax maanaam contrôle à la charge de l'essieu mooy chargement camion yi rek lu ñuy chargé dafa am noo xam ne nu ñu koy chargé day weesu capacité maanaam camion yi non seulement loolu danay jur accident waaye day yàq tali charge boobu nag dafa am ay directives yi nga xam ne e mois moo ñu ko sas et engagement bu ñu jëloon Sénégal jëloon mi ngi ko jëloon depuis le 19 septembre 2019 à Dakar donc lu ñu ciy wut mooy fexe ba respecter maanaam loolu mais bu ñu gisee. am na maanaam ay tolérance yu bëri yoo xam ni def nañ ko fii ci Sénégal boo demee yeneen dëkk euh, maanaam li loolu UEMOA joxe comme directive par rapport donc ak les charges à l'essieu Sénégal dong moo ko appliqué parce que dafa am loo xam ni dafa leen koy daf koy tolérer accepter ko les transporteurs waaye boo demee Mali bii maanaam règlement 14 boobu ñuy wax daf koy appliqué yeneen dëkk yëpp dañ koy appliqué Sénégal donc moo ko dese appliquer par rapport ak engagement yi nga xam ni jëloon na ko di wax ni nag gouvernement de Sénégal gis na jafe-jafe ak tolof tolof yi nga xam ni grève bi moo ko indi ñu waroon liggéey liggéeyuñu ñu waroon dem faju ji fajuwuñu ñu waroon dem am en tout cas commerçant yi liggéey de kenn demul dem dikk bi maanaam dakk na boole ci nag maanaam yàq-yàq bi nga xam ni am na ci ñi nga xam ni dañoo bëggoon liggéey su ma nekkee di continuer di liir xëy na loolu maanaam dana jafe waaye nag vraiment di regretter conséquence yi nga xam ni grève bi daf ko indi ci économie dëkk bi ci koom-koomu dëkk bi euh, lu loo xam ni lu diis la te di montrer suñu solidarité vraiment di naqarlu mbir mi bokk naqarlu bi ak population Sénégal nga xam ni grève bi yàqal na leen lu bëri te grève bi mënoon na bañ a am en réalité man gëm naa ni mënoon na bañ am bu fekkee defar dong moo ñu tax a jóg mënoon na bañ a am donc loolu ñu ngi koy naqarlu waaye nag di wax ni kat am na loo xam ni duñ ko seetal parce que gouvernement dafay condamné maanaam yàq-yàq bu am ci dëkk bi ñu jógoon pour liggéey. ñu toj seen ay oto jël saccagé ay kaaru ak ay bisu Dakar Dem Dikk loolu état bi daf koy condamné fermement te mënu ko satan képp koo xam ni dafa bugg liggéey war ngaa mën a jóg dem liggéey ku bëgg a grève droit consacré la bu la neexee nga grève waaye mën ngaa grève baña a tere ku bugg bugg ba noppi bañ a tere ku bugg liggéey mu liggéey parce que nu nga amee am droit grève noonu nit ki amee droit dem liggéey bu buggee liggéey donc grèveal sa grève booy grève te nga bàyyi ko bugg liggéey dem liggéey loolu nag gouvernement bi dana jël matuwaay bu mat sëkk pour képp koo xam ne bugg na liggéey mu dem liggéey ci loolu aussi bépp kuréel bu nekk ci biir état bi moo xam ne service la wala gouverneur wala préfé wala sous-préfet wala maanaam force de l'ordre yi ñu jël matuwaay yépp pour képp ko xam ne bugg na dem dëkk moo xam ne liggéey wala dox soxlaam mu mën ko def en toute sécurité en toute liberté donc état bi comme nu ma ko waxee léegi dana jël motuwaayam yépp pour que dëkk bi mën a tourner euh, comme nu ma waree te état bi dana jël ay responsabilité am pour loolu mën a am donc di leen gërëm bu baax di leen sant